mam famille ah sama yaay sama famille tu vois su may su may su may su may su may su may reyante rek ñoo tax ak du ma ne sama famille tam jàmbaar ci la bok sama yéene naa jàmbaar lu bëri ah institut la bëgg nañ mu sori tu vois et notre président aussi amee amee nañ ko njukkal aussi. relation nga am ak sa

solo yee rafet yooyu <laughs> effectivement da nga bëgg sañse guub bi fan nga ko jëlee quoi parce que jaay taar bi la wala. <laughs> da ngay tooñ. <laughs> voilà sañse waaw parce que je vois mes grands comme Jean ay footballeur au niveau tu vois. Mhm. dañ bëgg sañse man moom mu bëgg yàgg bëgg sañse quoi. ak look bi tamit pourquoi le choix. def karo bi nii lépp ko ma ko defee daf may a jàpp ak ni ma meloon moo tax. <laughs> alors entretien bi na naka lay demee métti na méttiwul sa bopp bi. comme sa bi noo koy entretenir. non ça va y a des produits yu ngi koy def. <laughs> voilà mën nañ xaar beneen beneen Pape Demba ak beneen look ak bu bees indi ay. waaw pourquoi pas ma dinaa ko indiwaat beneen <laughs> indiwaat lu mel mais mën na nga ñëw yokk tamit ah. Uh-huh. ah mën na la ñuy wax parce que fan yii laa ko def karo comme day gaaw a ñëw moo tax. Mhm. lan ngay wax la Pape Demba jaay taar la. non man boo gis boo ma jaay taar la damay kontaan. Mhm. Mm. comme maa ngi lu ma def si terrain ba dama jaay taar la damay kontaan. en tant que football parce que bu ñu wax Pape Demba mhm. mm. waaw booy wakaam la booy géej waaye non je du ma ba yàlla gars yi ma gis ma génn. duma duma afi show duma ma gis sax mhm. ma génn su ma génnee dama oto oto moom may jël si bundu kër pour ma sama koñ parce que damay rus tox si mbedd bi après su ma nekkee salé moom parce que ngi sama centre mhm. sama gars ñoo ñoo màggandoo en dehors du terrain en euh, dehors du terrain ban genre de personne nga pap Demba man tu simple ma gis gars yi dañoo fiti man dama dama simple parce que su même su ma su ma génnee guddi rek laa simple mais ngoon ni génnee guddi genre Ha? jangan semua game gudi ni, macam semua anak semua bro game. Dia buat. wes, pas tout le temps, mais semua anak mau ngambil. Voilà, je mau pergi Vous wala sa jikko kii bi quoi booy taawoon bi. mais comme ni avec le le soleil. je guddi bi daal da ngay nekk booy taawoon bëccëg ben, nga nekk benn benn Ah. c'est comme ça. le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com